mu itam lan daa mën nañ caa xamee lan ca lañ ca lañ ca àttan sëriñ bi boolewul ak dara boromam ak yonent boromam nag moo ko tànn bàyyi ko ci biir jaam ñi sakkal ci boroomam di woon jaam ñi ni ñu war a tum kem kàttan loolu kon loolu moo fi moo ci bàyyi moo ci war a bàyyi eh, wëliwul ak dara borom la ak yonent bi rek waaye borom la ko tànnal nag bàyyi ko ci biir jaam ñi mu nekkal ci boromam wane ci nañu war a nekkale su nañu war a jaamu suñu borom loolu nag daal di ci mën a jiitu xas wajhi la jublu jublu suñu borom jublu ko suñu lépp wan gannaaw lu ñu moom da du adduna te daanay adduna bañ noo saf nekk ci nag nekk ci ñu gën a sëriñ bi nekk ci li mu li mu fi bàyyil kon lanu ci war a bàyyi rek moo lim li fi bàyyi li mu fi bàyyil te lépp jëmale ko suñu worom suñu lépp mu jëmi ko rek ci sant sëriñ ak sax dàkk ci liggéeyal ko liggéey bi nag moo di nekkal ko ci li li li bëgg moo di sax dàkk ci yàlla yàlla ci sunu sorante bi sax dàkk ci yàlla yàlla ci joxe suñu lépp bàyyi àdduna bañ moo saf loolu lim ñu indil bu ñu taal dara lu suñu borom. ak àllaaxira ka mu jëm bu ñu taal adduna bu suñu bopp bu ñu taal adduna waaye nag li tax suñu boroom tànn sëñ bi mu nekk ci biir jaam yi nekkal ko ci jawoon jaam yi nañ ko war a jaamoo loolu moo ñu ci bàyyi loolu rek moo ñu ci bàyyi kon mu góorgóorlu ci loolu bu baax a baax moom góorgóorlu ci moom bu baax a baax ci nan mën a sant sëriñ bi ci nan nan ko mën a liggéeyee ci li ngeen fi bàyyil mu sax dàkk ci jaamu yàlla rek ci suñ lépp nag na ko suñ boroom diglee suñu kem kàttan na mu ko teree nu doo ko def suñu kem kàttan na suñu boroom bëgg bëgg suñu kem kàttan lam bañ du ko bañ suñu kem kàttan sax dàkk ci loolu rek lañ mën a liggéeyal sëriñ bi noonu ko mën a sant itam kon nanu góorgóorlu bu baax a baax dara waru fee waru fee bàyyi loolu loolu nag ci kàttan suñu borom ak xereñam bu mu yàqal dara lan war a am ci àdduna ci ci yiw nu xañ dara lan war ci biir te loolu rek nag itam mooy tax nu mën a sañ seen sëriñ bi mooy tax nu mën sax ci liggéeyal ko kon nañu góorgóorlu bu baax a baax a baax sax dàkk ci li mu fi bàyyil moom moo ñuy defar suñu lépp moo ñuy sàmm ci wàll yépp biir bitti adduna bari nay pakk lool waaye ku sax dakk mun saxee dakk ci li nga fi sëriñ bàyyil waratuloo tiit dara dañ koy tënk rek ci mu sax dàkk ci wéetal yàlla sax dàkk ci dooloo sëriñ bi diggam ak boroomam nag ci li mu nekk loo buñ ko defee duñ mu ci dara duñ jaaxle ci dara mu ragal dara te dara mu du woon ci woon ci noonu dara kon loolu mooy li ci am solo loolu góorgóorlu bu baax ci nekk li sëñ nekk ci nekk sëñ nekk ci li nekk ci li nekk loo te wéetal wéetal suñu gën a wé waxtu wu ne ci biir bitim ñu gën di wéetal suñu ci lépp di gën di dooloo sëriñ bi itam nag di gën a borom ci lépp loolu mooy li nga xam ne eh, buñ ci buñ ci buñ ci góor luñ ci gën a góorgóorlu rek gën a yëg suñu ci gën a moom suñu bopp ci tënki-tënki adduna ak gàllankoori adduna mu luñ ci gën a nekk rek. di gën a moom seen bopp ci ci wàllu googu tënk-tënki àdduna ak gàllankoori àdduna te bari na lool waaye loolu rek mënu ci mën musal kon bu nekkee ci loolu loolu te li ñuy andil mooy taxi àdduna ak taxi alaxira rek muccu àdduna muccu alaxira defaru àdduna defaru alaxira loolu rek la moo moo moo ñu ci moo ñu ci dikkal kon ñoo ngi sant ñëpp di balu ak ñëpp dénkaane ñëpp ñu balante ak bu xas wa lay amee diggu yàlla bu amee du too tal dara ñu yàlla ak alaxira ku tël ku tël ku tël dara nag ñu yàlla sa lépp xëccoo ci dara àdduna dootoo jëmee ci sama moroom jaam jenn yéene ji ñaaw waxuma laa jafe nga loolu doon rek la demee man góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a baax ci gën a sax dàkk ci wetu yàlla gën a sax dàkk ci jaamu yàlla loolu muy ci suñ lépp nag suñ ci yiw adduna suñ yiw adduna alax suñ yiw alax lépp ngi ci loolu kon jërë gën jëf nañ góor bu baax a baax a baax te gannaaw ba nu santee cant goo xam ne yiw fenn ndax ba nu suñu borom booleeg sëñ bi rek boobal suñu ajo mel na ni suñu aj boobu la suñu ajo fajo ndax euh, sëñ bi doy nañu ci lépp doy nañu ci àdduna doy nañu ci àlaaxira nit dafa ñàkk nag loolu kon sant yàlla rek noonu war ak nag jéem ma nekk ci loo xam ne ca la ko mën a sante kenn ku mën a liggéeyale jërë bi ñaan. góorgóorlu bu baax nag. maanaam góorgóorlu bu baax ci muuri koor yi. ndax yitte juree la ñu koor gi. kon nañ ci góorgóorlu bu baax a baax suñu kem kattan.